وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون فآمن ربك البنات ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم سائلون ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإن إنهم لكاذبون أصطفى البنات على وإنا لنحن المسبحون صدق الله العظيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi maa ngi leen di nuyu di leen massawu di leen jéggulu ci coono yi di leen siyaare yéen ñépp jiital ci nuyoo bi ak siyaare bi ak taxawaayam ci alxuraan di rafetlu baax ak taxawaayam ci bëgg bëgg xam-xam te loolu li ciy firnde mooy jaamixul kabir bi nga xam ne taxawal na ko lu université bi mu taxawal loolu firnde la ci kon ñaan suñ borom ginnaaw loolu ñu ñaan sëñ Moustapha moom sëriñ Massamba suñu borom yokk aw wéram yokk aw fanam ban naa di naa la sëriñ Massamba yépp suñu borom àggaleel ko te ñu ko moom ak njabootam yabal na leen fi ñëw fi keroog ba ñuy amee xalaatu barub bi daal ji lañ fa dem waxtaan ca moom laaj ko ci ndigal mu bég ca lool am ca ngontaante lool jox ñu ci ndigal kon moom ñu ngi ko ñaan moom te suñu boroom yokku fanam bu baax may ko wér bu baax noo ko noonu lay ñaanal suñ kii dafa sëriñ Seex moom suñu mor faari xari moom mi nga xamee ne moo waral lii lépp ndax yàlla dogal na daara jiite bi ñu koy teg xeer wi ci 2007 moom mooy ñëwoon ànd kook ñun jox ñu ci ndigal dëgëral ñu ci may ñu ci aw fit jox ndigal ay doomam ak ay taalibeem ak njabootam yépp ak waa kër gi yépp ñu jàpp ci daara ji te moo ko te moo ci jiitu ndax bi nga xamee na am na nañu yéene yaatal liggéey bi dañoo dem waxtaan ci ak moom dama dañoo bëggoon barab bu yaatu féete Daaru Karim boo xam ne danañ fa mën a def daara yu mag ndax daal yi ñu nekk xaw naa tuuti mu ne dama ñu jox la foo xam ne du sori sa kër nga xool foo xam ne dana yàlla daara nga def ko bay ñëwee tamit ba gis barab bi tamit jox ñu ko dañoo yebalaat ci Sëriñ Saaliw boobu jamono yi ñu fi ñu dem yóbbu plan bi. ci sëriñ bi mu bég ci lool moom tëj joxe ci ndigal ne nañ ko fonk te yaaroo ko jamono boobu nag sëriñ Seex ànd ko nu wax dëgg ànd ñu rafet ni ma ko waxee léegi rek ba ci jël këyit ak big bind ay taalibeem kenn kon mu wala yawal na fa yëmut ci lool waaye àggaat nañu sax yóbbu ma bitim réew paase na ma dem ci taalibe yi ci turu daara ci yooyu yëpp àgg la kon jëmm jooju jëmm la joo xam ne mënoo koo fay li ma defal ak cër yi ma jox fii ci kër gi kooku mënutoo koo fay dama ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi rek te wéral ko ba yéene jëm am bi ñu am ci moom borom àggale ko ñu taxawu la daal taxawu nañu suñu war faari xari benn yoon ndax sëriñ bi tamit ku fi nekkoon du mën a weesu bii du mën a weesu bii ak ñun ndax Serigne Cheikh moom jamono bu ne dama ko fàtte mu sama dund daa ma koy sama dund ni ma defal moom moo too koo sant noo xamante tamit Serigne Fallou mii ak doomi Serigne Mor Fatou yi góor yi jigéen ñëpp noonu lañ taxawoo ci samay mbir noonu lañ taxawoo ci daara ji ñoom ñëpp am nañu yéene am nañu def euh, seen jëf feeñ na ci daara ji seeni xalaat feeñ na ci ñoom ñëpp góor ak jigéen ñoom ñëpp ñu leen sant di leen gërëm kàddu yi moom mën a ndax kàddu cant rek laa joxe ndax li ma waroon wax lépp ci leer daal yi ñi fi jaar leeral nañ ko kilifa yi leeral nañ ko borom xam-xam yi leeral nañ ko kon moom kàddu cant rek laa joxe kon noonu dañuy sant nag borom xam-xam yi fi teew yépp jàngalekat alxuraan yi fi teew yëpp ñooy xam xam ne ñooy samay mbokk pas-pas ñoom tamit maa leen sant bu baax ndax wuyu si nañ ma wuyu si lu rafet ñoom tamit mën ma leen fay. Euh, ngi sant ngi sant ni ko wax rek jabaru suñu Mor Faty ñooy jigéen ñi te soxna Mbàkke jiite ko. ñoom ti taxaw nañ bu baax ci daara ji def ci liñ naan lépp bis bi def nañ ci seen alam lépp lu ko yëwanal def nañ ko naka moom la ñuy sante soxna Bintu mbakke ak soxna Ajiba xamee ne ñu xam ne ñu jiite euh, waajur gone yi ñu jigéen ñu am pas-pas di waajur yi am pas-pas ni ko seen bu xuddoos waxee léegi muy góor ñi ak jigéen ñi ñoom tamit jàppale nañ ci jàppale daara ji bu baax a baax ñu ngi leen di ñaanal yàlla suñu borom dëgëral leen yokku seeni xéwal ba yéen ji ñu am ci daara ji suñu borom àggale ko boo ko defee nag daara ji moom lu ko tax jóg moom mooy jàngale ak yare ndax ab sanc ci lañ nekk te xam nañ ne ab sanc munta neex kon suñ yéen maanaam daara suñu masamba sax ñun lii suñu ëpp suñu suñu yéen a ëpp na lii ci daara suñu masamba ndax daara suñu masamba boo ko waxee daara alxuraan nekk ci biir daara suñu masamba boo ko waxee euh, daara xasida dana nekk ci biir daara suñu masamba boo ko waxee tamit daara xam-xam dana nekk ci biir daara suñu masamba boo ko waxee tamit fi ñuy jàngale majaalis mooy fi ñuy jàngale xam-xam ni ma ko waxee léegi dana fa nekk kon daara ji ñu nekk am ab boo xam ne dañ koo def mu ëmb lu baree bari ci biir daara ji rek mu àggul nii waaye am nañ yéene yi def fi barab boo xam ne dañ fi yëkkatee daaji xasida waxuma fi ñuy jàng xasida waaye daaji xasida dañ ko dañ jànge barab bi ñu toog sax foofu lañ ko def incha allah am na yéene itam def fi majaalis bu dëgër boo xam ne bâtiment boo xam ne majaalis ay nekk gone jàng alxuraan ba mokkal di fi mën a jàng ñu bëgg koo def majaalis boo ne bu boo xam ne day boole majaalis bu njëkk bi ak bu mujj bi am nañ yéene itam def fi daaree jigéen daara yoo xam ne jàngale ay jigéen moom te bokk na ci programme bi am nañ yéene itam def fi liggéeyukaay yoo xam ne ko ne dañ fi yëngu mel ne ay mbayum dër yooyu ñu ngi ko doon gëstu am nañu yéene def fi mel noonu kon fii ñu nekk ak com ak la boo xam ne yooyu yëpp bëgg nañ mu ëmb ko daara ji nag daa jiitu daal njëkk noppi rek waaye ci des yëpp bëgg nañu am te incha allahu ñu jàpp nañu ci ba liñ ci yéene lépp suñu borom defal ñu ko kilifa yi nag dañ koy defal sëriñ Massamba lañ koy defal daara ji moom moo ko lislaam ko moom sëriñ Massamba moom ah, kon ñu ci tàll loxo ñëpp tàll loxo gi nag ci ci xalaat ak ci doole ak ci eh, eh, man-man yëpp ñu ngi ci tàllal mbokk yi ñu jàppale ñu ci luñ man xew bu ñu xalaatu kenn kenn ku ne li nga man rek nga def ñu ko ci daara ji jàppale ñu ko ndax Eh, xaw naa diis te am nañ yéene suñ yéene ak suñu xor yéene ci daara ji lool kon buñ sañoon nag ñépp xam ne seen daara kenn kon na sa yoon nekk ci kenn bañ cee gàttuñu daal kenn kon naa xam ne sa daara nga bañ cee gàttuñu man nag li sama yéene mooy sama guddi ak sama bëccëg suba ak ngoon fa ma mën a nekk daara ji mooy sama yéene mooy sama liggéey oma baneen liggéey oma baneen jubluwaay guddeeg bëccëg liggéey mooy daara ji ku may jàpp ci nga may jàppee kon loolu maa ngi koy fàtte mbokk yépp ñu jàppale ñu sax amoon na jàppale nag ba ma ko waxee du jox jox waaye ay xalaat ak ay yéeneeg yépp laa jublu jàppale gi kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp saka waxtu bi daa li ñu waroon wax lépp euh, ah, liggéey <laughs> jiba euh, kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp rek di sant euh, ku ñuy wax soxna su baax soo xam ne tamit jàpp nañ ci daara ji ñu soxna Daba Diagne ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant dong yi nga xamee ne jaaroon nañ ci daara ji ñoom dañuy leen sant di leen gërëm di sant waa Gédé Boussa xam na fa la daara ji nekkoon te mbusoo bi yu baree bari ñu ngi fi ñoom taxaw ma bu baax ba ma nekkee foofa ci Gédé ak ñëwee fii ñoom ñëpp ñëw nañ ci bis bi ñu ngi leen sant di leen gërëm waaw suñu xaalim suñu si Muxtaar egsi na moom te ñu ngi koy siyaare di ko nuyu bu baax di sant mbokk yi nga xamee ne samay mbokk lañ wala keneen ñoom tuddi leen ñi leen sant di leen gërëm daal ci njiital alaaji Balla Kane ak Serigne Dame Kane ñoom ñëpp ñu leen di sant di leen gërëm sama waxtu yi daa xaw a xat te liñ bëggoon wax lépp ki defi wax nañ ko ñu am kontaan daal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di tàllal loxo ñëpp dem mbégte nag ci wuy si gi wuy gi am nañ ci mbégte bu baax mboolum ñu tuddut ñu ngi lay jéggulu ndax kenn ku ne bëggoon nañoo dem ba fa nga nekk jox la loxo ndax ñoo la fi indi ñu ngi jéggulu ci kenn ku ne yitte ñu la war jox bu fekkee jox ñu ko koy jéggulu di ñaan suñu borom fay la yiw ci barkeb sëriñ bi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu subhanahu wa taala di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam di sant Rasuul suñu borom guddal aw fanam ba li mu yeneen lépp ci toolu suñu borom bi ak ci liggéeyu Xaadimu Rasuul suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam di nuyu di jiital ci nuyu ak siyaar sëriñ Moustapha moom sëriñ Massamba di ko ñaanal suñu borom guddal aw fanam yéene bi mu am ci kër Cheikh Massamba suñu borom àggale ko ci jàmm ak salaam di ci teg seen jëwriñ seeni taalibe seen xarit Serigne Cheikh mu Serigne Mout Fall Khary di ko ñaanal bu baax sunu boroom dëgg ko kàttan ak wér ci barke Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu ndax liggéey bi yépp ci jëmmam jooju rekk ci ginnaaw kilifaam yu baax yi ak ndigal yi nga xamante amoon na ko ci ñoom moo waral tey lii lépp am kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal bu baax di ci teg jëwriñam ci tedd ji sëriñ Fàllu mu seer mu fàtti xar di ko ñaanal bu baax yàlla dimbali ko suturaal ko di nuyu ki nga xamante ni moo yor tey baatu Cheikh sàmba di sëriñ Cheikh mu sëriñ Mahmoudan mu taxaw taxawaay bu rafet ci njaboot gi taxawal sëriñ bi ci njaboot gi ñu ngi koy nuyu bu baax di ko siyaare bu baax di nuyu mbooleem ñi fi teew ñëpp mbokki taalibe yëpp ak mbokki julli yëpp di am mbëgte mu rëy ci bis bi nga xamante ni <clears throat> bis mun ko gën a féete kaw ndaje mu ñu mën di def ci àddina bis ndaje mii mu ko gën a kawe ci sunu boroom amut kon loolu dañuy sant ki nga xam ni moom la ko yàlla jaarale ci moom muy sëriñ Saalix mu sëñ mut faati xari nga xam ni alxuraan rek moo ko ñor ay magam ay waajuram am ci moom yaakaar waaye day tësut seen yaakaar ndaxte la ko ay maamam bàyyi loon ak ay baayam lool mooy dox ba lii tey am nga xam ni lii njabootu Serigne tubaab gépp la ko defal rawatina njabootu Cheikh Massamba kon Serigne Saliou ñu ngi lay ñaanal suñu boroom bu guddal soo fan yokk sa wërsëg yokk sa man-man yokk sa xam-xam ba fi nga bëgg ak fépp yàlla defal la nga àgg fa ak jàmm ak salaam te benn gàllankoor kaddu yi nag kaddu yu canq rek la ak kaddu yu ngërëm hmm. ay ak kàddu yoo xamante ni ab cër bu ma buñ ma jox ci kër sëñ Massamba buñ ma ci jox moo waral ñu ci yëkkati suñuy kàddu ndax sëriñ Abdou Samad nii ak sëriñ Fallou ñoom ñaar moom ñëpp samay wëllëre lañ waaye ñoom ñoo ci raw waaye nag man njabootu ma Massamba ñëpp ci njaboot gi laa bokk. ndax sama maam bi jur sama waajuru jigéen sëriñ Massamba lañ ko tudde fii ma nekk ci boode tey jii sëriñ Massamba moo ko may sama maam kon dama cee bokk ci ñaari far fànn googu ak fànn sëñ Tuubaa gi waaye nag ma bokkaat seen biir ndax kenn ku nekk ci ñoom am na noo ma jàppe noo xam ni xam naa ko bu wér a wér a njaboot gi yépp nag muy góor muy jigéen kon kàddu gi loolu rekk moo ko waral ngeen nekk ñu am kóllëre ñu am wëllëre ñu boole seen bopp ñu bari war nañoo roy ci yéen waa kër Cheikh Massamba ñépp dañoo jàppaloo nekk benn say ku mag yërëm gone ku nekk ndaw wet mag loolu laa fa gis mu nekk nag loo xam ni euh, lu ma neex la tey ci loolu rek ñun ci lañuy dund ci la ñuy nekk ndax ak taalibe rek moo fi am solo lu dul loolu rek amul solo kon kàdd yi kàddu yi cant la ak ngërëm di ñaan ku fi teew ko ne suñu borom jéggal la say bakkaar feebar bi nga xamante ne si ñu ngi koy dégg ci réew mi suñu borom jële ko fi ci jàmm ak salaam ci mboolem àdduna sépp tey am nañ ci yaakaar ndax bis yu mel nii luñ fi ñaan sunu borom suñu borom da ko fiy def te kilifa yu baax yëpp a ngi fi kon seen kilifa yi ñu ngi leen di ñaan loolu ngeen ñaan ci réew mi jàmm am fi ndax jàmm jooju mooy jàmmi àdduna sépp te am na fii yaakaar ci bërëb bu tedd bi kon te béréb boo xamante ni si Serigne Touba moo joxewoon woon ndigal li luñ fi ñaan suñu borom da koy def kon ñu ngi koy sàkku ci mbooleem kilifa yi fi teew yëpp. macha di sant ñëpp di gërëm ñëpp. wasalaamualeykum wa rahmatullahi waaye nag bi muy. liggéey bii nag moom dañ dañ cee dañ cee tase mu bëgg ko lool man tam ma bëgg ko lool ñi mu di ma seet si ñu di ci waxtaan ma di ma ci xelal ñu di ko ànd fii ñëw naa fi lu dul yoon bii jëkk naa fee ñëw li mu wax ci woon ak itam suñu yéene rek la dañuy fe dañuy feeñal yéene rek ndax bu ñu sañoon def def fi dara ni ko jëfkat yu mag yi yëpp di defee Ah, loolu loolu mu wax ci liggéeyu daara yi itam ñun dañuy dañuy dañuy dañoo xam ne sëriñ bi moom bëgg-bëggam bi gënoon a màgg ci àdduna lépp toolam la tudde la tudde téere bi ban nag ku ci nekk rek dañ dañ dañ fas nañu fas yéen a ànd ak yow te moom nag mu yitteel ko lool ban nag yàlla yàlla taxaw lii mu projet bii nga xam ne yéen mooy def ko muy daara ju mag di daara kër Samba daara kër Sëriñ Tuubaa allah waaw ndax lépp loo xam dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko dañ ko sos dañ ngi dañ ci taxaw te muy te yàlla tax yàlla moom loo ko kii rek kanam rek lay jëm kon nag rafet na ci jot loolu yàlla suñu borom dokk taxaw taxaw mbooloo mii nga xam ne itam ñu ngi lay wuy si nañ la ci sa woote bi xam nañ ne jéeg bu fi nit jéego yàlla na ko yàlla defal lu kawe jotam yàlla na ko yàlla boole ci àndandooy alxuraan ndax ëllëg itam alxuraan day day ramay àndandoo bon nag ku fi nekk ku fi nekk rek yàlla suñu borom boole la yàlla waaw ndax yàlla loolu ñu bokk seet na bu baax ci ci ci ci ndajeem tey mii ndax luñ ko yàgg yéene la waaye nag man xaramal baabu wala ja wala ala ku ne fii rek lay mujj yàlla na egg ba doon toll fu ko damay damay dem kokki damay dem ci sëriñ Mor fu ne lay dugg di xool waaye nag pas-pas rek la te kenn gënu fas man yàlla na yàlla taxaw yàlla ku fi ñëwit ngir yàlla ak wettilante ak yow ak jàppalante ak yow ci liggéey bi itam yàlla suñu kàtt na waaw fii it du du du ñuy du ñuy du ñuy luñ ci ci alxuraan koy wër di ko topp fii ci kër suñu sàmm yi itam yaakaar naa ne ko fekk ndax suñu sàmm ku ne dégg ku ne dégg na waaw ah, moom moom ku dégg na ko ci ci ci ci dégg moom sëñ bi lu mu bindu ñu ne moo koy maas dégg ah, ma xam-xam loolu nag bon alhamdulilah rabbil alamin dañuy sant rek yal na leen yàlla kàttanal bu baax a baax a baax te ñu ànd ko noonu ñëpp fi nga jëmee lii mu egg fa ah, waaw ci barke Sëriñ Tuubaa waaw ku ne hmm. waaw amin tàllal leen te wax amin amin amin amin amin amin amin amin